prochaine consultation électorale du 23 janvier 2022, conformément à la circulaire numéro 7 du 22 octobre 2021, fixant la date limite des dépôts de candidature au 16 octobre 2021 à 16h. Se référant au procès de la commission d'investiture du département de Dakar du samedi 23 octobre 2021 et relatif à l'examen des dossiers de candidature et qui de candidature de, de, candidat à la candidature du camarade Barthélémy Diaz à la ville de Dakar. Appuyons, soutenons et la candidature du camarade Barthélémy Diaz comme candidat à la candidature de la ville de Dakar. Je vous remercie. Assalamu coalition Tahaou Dakar, ci suñu ndaje bi ñu amoon tey ci lundi cinq octobre 2021 ginnaaw ba ñu waxtaanee ci situation politique bi nga xam ne daf ñuy conduire ci élection locale yi ñu jëm 23 janvier 2022 ginnaaw ba ñu saytoo circulaire numéro 7 du 22 octobre 2021 bi nga xam ni mooy tënk dépôt dossier candidature yi le 16 octobre 2021 à 16h ginnaaw ba ñu saytoo procès verbal commission départementale d' investiture du 23 octobre 2021 bi wax ci gëstu candidat wu te muy confirmer candidature suñu camarade Barthélémy Diaz ñuy wax ni ñoo ngi dëggal di jàppale di taxawal candidature suñu camarade Barthélémy Diaz comme candidat de la coalition Yewwi Askan Wi pour la ville de Dakar Vous me permettrez rapidement, avant de lever la séance, parce que je, répète, je le répète, ce n'est pas une conférence de presse. Je voulais que vous me permettrez de pouvoir d'abord rendre grâce à Dieu et remercier mes camarades de la coalition Tahaou Dakar. La politique est faite de soubresauts, mais nous sommes d'abord des croyants. Donc nous prions d'abord le bon Dieu que cette candidature soit ce qu'il y a de mieux pour la ville de Dakar. Et nous prions le bon Dieu de rentrer dans santé et d'en sortir en bonne santé. Et surtout, nous prions le bon Dieu de donner à la coalition Yewi Askanui, au sortir des élections locales du 23 janvier 2022, la victoire, cette victoire tant Parce que pour nous, notre objectif, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est le Sénégal. Et l'essentiel, c'est de remettre ce pays sur les rails. Donc cette élection est une élection que nous considérons comme étant le premier tour de notre élection présidentielle. Donc je terminerai en disant seulement, au-delà de la coalition Tahaou Sénégal, je souhaiterais tendre la main à tous mes camarades, à tous mes frères, à toutes mes sœurs, de la coalition Tahaou Sénégal, mais de la coalition aussi Yewi Askanbi, pour qu'ensemble, nous puissions construire une dynamique, construire un espoir qui puisse nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et vous me permettrez de terminer en remerciant la presse et en vous invitant aussi à continuer à informer vrai et juste. Parce que c'est à partir de cette information que les Sénégalais seront appréciés à leur juste valeur le choix qui doit être le leur le jour de cette élection. Merci à tous, à ceux qui sont venus, ainsi qu'à ma tënk ko ci wolof c'est pas une conférence de presse ah, c'est pas une conférence de presse je ne pourrai pas maa ngi jégalu nag wante ngeen jégal ma tamit ci kàddu yi parce que balaa may pare tamit vous me permettrez de faire une motion de soutien au groupe de presse des médias euh, ce sont des Sénégalais et des Sénégalaises qui travaillent au-delà de la politique qui nous réunit aujourd'hui je souhaiterais vraiment lancer un appel aux autorités de ce pays Au-delà de tous les combats politiques qu'on peut mener dans ce pays, pensez à toutes ces Sénégalaises, à tous ces Sénégalais innocents qui n'ont rien à voir avec nos combats. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés dans ce pays qui auraient dû être fermées parce qu'elles doivent des dizaines de milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Et le ministre des Finances m'entend. Les dégrèvements fiscaux dans ce pays sont devenus pour certains fonctionnaires une religion. M. Bougan Gaydani est un acteur Mais au-delà de sa modeste personne, on ne peut pas sacrifier tout un groupe de presse seulement parce qu'on doit liquider un homme politique. C'est inadmissible. S'il y des impôts qui doivent être payés à l'État du Sénégal, l'État du Sénégal a d'autres moyens de se faire payer que de chercher à humilier tout un groupe de presse seulement pour atteindre un homme. C'est ce que je voulais dire. Je vais essayer de dire ce que j'ai dit en, en Wolof. mais vous ngi leen di jégalu xam ngeen man moom damay bëgg wax damay bëgg a waxtaan wante tey c'est pas une conférence lu mu bëggoon wax daal ci gàttal mooy gërëm ñëpp sant ñëpp wante ngeen may ma ma njëkk gërëm sant suma mbokk ñu ma bokkal coalition taxawu Sénégal mu nekk euh, coalition bu suñu kilifa di jiite di Khalifa Ababacar Sall wax naa ko nee naa lii du conférence de presse waa taxawu Dakar ci seen mbaaxaay ci seen cofeel ci seen pas-pas ci seen Pastef ñoo taxaw nekk lu jot jot na mooy jóg biiralaat lu ñu waxoon parce que lu ñu waxoon mooy ñun dañu dañuy candidat ci mairie de Dakar kooku tey waa taxawu Dakar dañ ko biiralaat fii ci seen résolution bi ma di ci gërëm dañ di sant ñu wax waxaat nekk ñoom ñoo déposé depuis le 13 octobre seen candidature candidature boobu nag man maa koy porté man Barthélémy Dias déposé nañ ko nag fu ñu ko naroon déposé mooy ci commission Yewwi Askan Wi bu département de Dakar monsieur Diakhaté bokk ci grand parti moo koy jiite euh, lu waral lii ñëpp xam nañ ko parce que wax dëgg yàlla ku toog tey nekk taxawu Dakar tànnuñu euh, candidat kooku peut-être ñu koy wax ñoom la engagé wante ñun waa taxawu Dakar biiral nañ ko tey fësal nañ ko tey dañu déclaré suñu candidature fu ñu ko naroon déclaré. parce que ñun wax dëgg yàlla taxawu Dakar dafa bokk tey ci beneen coalition. coalition boobu moom la charte Yewwi Askan bi jox sañ-sañ bu mën a recevoir ay candidature donc je pense que loolu tout de même xel mën na ko nangu te nopp mën na ko dégg fu may daanalee nag mooy ñu ngi tàllal suñu loxo yi bépp góor bépp jigéen bépp mag bépp ndaw bu ànd ak ñun ci coalition taxawu Dakar tàllal tamit suñu loxo suñu mbokk yi ngeen xam ne ni ñoom ak ñun ñoo bokk suñu coalition Yewwi Askan Wi politique fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi mooy xëccoo wala parloo wante loolu mbiru àdduna la wante nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax ci yaakaar bu askan bi teg ci coalition Yewwi Askan Wi te coalition bi nañu bàyyi xel ci turam ñun ñoo wootee yeewi askan wi wooteewuñu fi noot askan wi wooteewuñu fi nax askan wi wooteewuñu fii leneen ginnaaw yeewi askan wi kon ñun ñoo noro wane le bon exemple moo tax au-delà des remerciements ñu ngi tàllal suñu loxo bépp acteur politique bépp responsable bépp militant bépp sympathisant bu bokk taxawu Dakar wala bu bokk yeewi askan wi ñu bokk ndey bokk baay mën a waxtaanee lu askan bi namm ci ñun te kooku wax dëgg yàlla je pense que amul leneen lu ñu mën a xaar ci ay responsable yu toll nii ñun ñii parce que nous sommes tout de même des responsables qui aspirons à diriger ce pays donc xajuñu ci xuloo xajuñu ci xëccoo xajuñu ci yenn ñaawteef yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp mais surtout tamit di rafetlu encore la présence du maire Palla Samb parce que dafa demoon bu benn remise de dons dalu si waat na je peux pas parler de ça je peux pas voilà ñu ngi gëm tamit sant la présence de suñu yaay tuuti Samb ah monsieur le maire par le Samb du Point E est là vraiment je pense que du plateau aux Parcelles Assainies toutes les coordinations Taxawu Dakar se sont mobilisées et je l'ai déjà dit su ma tuddee Aïssatou Fall Mbacké tudd Ngoné Mbengue daanaka tudd naa jigéen ñi yëpp tey suñu tante ñëw tuuti Samb ñu ngi koy gërëm sant ko di ko sant suñu tuddee tey Bassirou Samb tudd euh, Seydina Issa Laye euh, tudd tamit euh, Ndeye Fatou Sarr tudd nañ ndaw yu nga xam ne ni ñoom ñoo ilif tey ndaw yu nekk biir taxawu Dakar et je pense que la présence je répète je rappelle aussi au passage hein, malheureusement taxawu Dakar n'avait que seize maires sur lesquels les onze nous ont tourné le dos il en reste cinq Et eh, Tahaou Dakar, comme vous le savez, ça a été initié par des exclus du Parti Socialiste. Sur ces cinq maires, il y a trois maires qui sont socialistes. J'en fais partie. Madiok Diop de Grayov est présent. Par le centre de Fanpoint est là. Je pense que au-delà de ces présences, je pense que les autres, vous les connaissez, les, que ce parcelles asséniques, comme j'ai déjà indiqué à Gobo Ibrahim Cyril HLM, ku lim jum ñëpp ngi fi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp kuñ fi limul tamit ñu ngi lay jéggalu la presse tamit je tenais vraiment à respecter les engagements c'est une résolution qui a été lue par le département et euh, je vous remercie de votre présence je vous souhaite beaucoup de courage et sachez aussi que le combat aujourd'hui du groupe des médias sachez que nous sommes en face avec vous et vous avez tout notre soutien que Dieu vous garde